الرسول لجنة بمداد لك زوري على جميع على زود لجنة jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf noo ngi ye noo ngi leen di seeral yeesal suñu suñu yeesal suñu jaayante sëriñ noo gënoon nooy noo leen koy seeral di leen yeesal di leen ne waxtu bu ne noo ngi fas yéene fenn suñu laxasaay fas ci jaamu yàlla lëggi lëggi lëggéeyale ko sëriñ ko yéen jaamu yàlla liggéey la ko sëriñ bi boole ko ci la la la nu dese ci jaamu yàlla te sunu bàyyee ñu ko nu boole nu boole jaamu yàlla gi nga xam ne moo nu fendi la nu ca dese ci lu baax lépp nu fasal ci sëriñ bi boole jaamu yàlla ga ak jëf jë liggéey ba delloo ko ko la na ci am lépp nu nu nu nu jébbalaat ko ko loolu mooy nu sax dàkk ci jaamu yàlla ndax moo nu fenn waaye nu fasal ci sëriñ bi defal ko ko murub liggéeyam boole ko lan dese woon nga xam ne suñ yàlla nu taw feex yàlla nu dimbali ban mën koo def ci lu baax ak lu mu mën a doon nu boole lépp jébbal sëriñ bi doy nu sëkk suñu digganteeg suñu borom ci biir ak ci biti tey ak nun ci ñaari diggante rek lañ nekk ci ñaari diggante la lañ nekk muy wéetal yàlla wéetal yàlla mooy def muy dindi la ca dolliku mooy doolu sëñ bi digg ma boromam doy noonu sëkk doy noonu sëkk bu dee ci saayir bu dee ci laahir lu ma ta faggu faggul nañu ko tey ak ëllëg lu ma ta lu mën lu ma ta ñaanal ñaanal nañu ko te juwóone sax boromam kon dara dese wunu lu dul sax dàkk ci jaamu yàlla ak liggéey la ko sëñ Tuubaa